13 771 parrains mooy li dese Abdoul Mbaye pour mu mottali parrainage yi njiitu coalition bii di Abdoul 2024 di ñaawlu système vérification bi waa conseil constitutionnel jël ren ngir ceytu parrainage yi. bàyyi nañu jiital doole buuxante indi tirage au sort jeu président de la république mënuñu ko fal jaarale ko ci tirage au sort système parrainage bi nga xam ne bi moom moo fi ne. teguwul ci yoon respectéwul suñu constitution. li jëm si ñetti at yi jàll ancien premier ministre di ñaawlu doxalin nguuru Macky Sall mu ne fasar fasare xaalis ak sàcc moo tax sénégalais yi di dund ay jafe-jafe yu bëri si lu jëm si koom. li nga xam ne lii moom la ñu mën a jàpp loo xam ne lii Sénégal yi ñu ngi koy dund mooy njëgu dund muy yokk mooy ñàkk xëyum xale yi ak mag yi. ñoo gën a cher les courants fépp foo dem ci ci Afrique nga wax ci teg nag faju di gën di jafe njàng mi di gën di metti di gën di jafe ba ca université bii nga xam ne tëj nañ ko di dund itam démocratie buy dellu ginnaaw Abdoul mbay di xamle ni élection yi ñu jëm war nañ taxaw bu baax ngir soppi doxalin jot nañu indi leneen élection buñ koy oo élection présidentielle du doon pagaay kon soppi doxalin waaye nag ci jàmm soxlawul xulo soxlawul xeex di xamle itam su jotee réew mi benn mandat la fas yéene def mandat boo xam ni day wàññi doole kii di président de la république